sunna si nag mooy boo ko manee nga xaaj li nga rey ñetti xaaj benn bi nga jëfandikoo ko benn bi nga sarxe ko benn bi nga denc ko di ci jëfandikoo su fekkente ni manu na bu ko sa kër ëppee nag nga xam mënuwul nag bu boobaa li ngay def ci sa biir kër nga yéene ko rek ak sunu borom moo wax ni sallallahu alayhi wa sallam jox naa la dégg bu tudd kaw sar waaye bis bi bu jotee na nga rey am tabaski te julli ñaari rakka mooy li ñu doon def mbokk yi nan wattandiku tooñ ak xeeti tooñ yëpp moo xam ci jëf moo xam ci wax moo xam jëli fi jàmbur moo xam yàqub der dañu xam ni àddina ji kenn saxu fi àddina ji dañ fi jaar rek jàll fi la ñuy liggéeyale àllaaxira réew euh, àddina bii euh, dëkkub nattu la ak jafe-jafe waaye na ngeen dimbali ko muñ ñàkk wala néew doole bu mu leen tax a jalgate musiba yi ak jafe-jafe yi dee ko dee leen ko dee leen dimbali ko muñ ci loolu muñ de mooy ndey mboolem xeeti jikko yu rafet yi mooy seen njaat njaatige waaye moom sax mooy jiitu te ku muñut da def loo war def te dootoo mën a jàll sax doo mën a weesu fi nga toll sunu borom de moo wax ni danaa fay gaa yi nga xam dañoo muñ yool boo xam ni moo gën a rafet lañ defoon ma di leen dénk itam maandu ci seeni wax seeni jëf ak seen jëflante te ngeen wattandiku wax ak doy waar rawatina ci jamono ji ñu toll nga xam ne bu doon géej duus yaa ngay jallaañoo bu doon callimeer bu doon ngelaw callimeer loo xam ne fàtt na bët yi waaye bu doon sawar daay guy bërëx bërëx la na ngeen ko wattandiku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit day dana wax benn baat képp jàpp ni aayut sunu borom tàbbal ko ci sawaro yoo xam ni bu duggee ca bunt ba dana dox juróom-ñaar fukki at door a àgg ca suuf ayaasan ci benn baat xam da nga jàpp ni aayul ana deru nit bi nga yàq ana yëf ana ana ana ana nit ki nga ki nga ki nga ki nga deram ba kenn dootu ko tudd ki wax te jàpp ni aayut rek sawaraam mooy juróom-ñaar fukki at mu tàmbalee ci bunt ba tàggul ci suuf kon nañ watu ni ko wax ji watu ni leen jëw watu ni leen rambaaj watu ni leen lekk alali nit ñi ci lu dul dëgg jëw day day lekk ab yiw ni sawara di lekke matt am na foo xam ne ni sawara di lekke mboob mboobu boo ci tegee bantu almet bu tuuti nees tuuti mu ni xoyom xoyom daal di jeex lu mu rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku di rambaaj doo dugg àjjana moom dañuy dugg àjjana laa yadxulul jannata nammaam na ngeen xam ni bis boo xam ni fenk na mi ngi leen di sori àddina di leen jegeel àllaaxira ngeen di gën a sori njaboot gi di ngeen di wéeti ci bàmmeel kon te lépp lu ngeen dund des na leen ko laaj waajal leen laaj yooyu tontu te tontu lu it ngeen waaj mu nekk tontu loo xam ne lu yàlla nangu lay doon. te ngeen jëfandikoo liggéey nag te bàyyi caaxaan ak lijjanti ak toog muy dox jooju ñuy wax dee leen liggéey ku yëngatu lu mu tuuti tuuti te fas ca yéenee sàmm sa ngor ak sa dina yàlla dana la ci dimbali da ngeen wattandiku fexe yoo nga xam ni yu yu baaxut la képp ko def fexe bu baaxut ci sa bopp rek lay dellu si ni ñaan sunu borom subhanahu mu defal lu jub defal nu am lu nuy jomb te defal nu ak am koom ci musal nu ci lépp loo xam ne lu aay la te defal ñu yërmande ak barke defal nu jàmm ci réew mi musal nu ci fitna yépp nag musal nu ci ñàkk ak sawara te nangul nu sunu jaamu yàlla gi di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne jóge nañ fi dem màkkatal mukarrama yàlla nangu seen aj def ko aj gi nga xam ni fay mooy aljanna def ko aj gi nga xam ne fayam mooy set ba ci ci bàkkaar ba ñu dellusiwaat seen réew ñu sargal leen ci barke bis yu tedd yi akbar allahu akbar walilahi alhamdu di baal ñëpp àq ñëpp àq di ñu teew ko ay déew ñu bëree euh, wax nañ man itam Ahmed Aidara mi nga xam ne mooy meeru gox bi ak lenn ci ay nit yu baax dugal nañ seen loxo ci bis bi ak yiisam moo koy baaxal yàlla yàlla gën ko dëgëral gën dëgëral képp ku ci dugal loxoom te nangul ñu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu